ilayka tawassalnaa asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi ci biir Sénégal ak ñi nekkul Sénégal ndigal jóge de Sidi Boubacar Ibnu Alaaji Mansour xalif général Tijani jaar ci rakkam bi xaritam bi soppeem bi Cheikh Sidi Alhaaji Malik Ibnu Alhaaji Abdoul Aziz jaar ci Sidi Boubacar njool Fuuta ngeen min ko ak njabootu Cheikh Sidi Alhaaji Malick yëpp waaye nag jëm ci jullit yëpp jumaa ji seen maam Cheikh Sidi Alhaaji Malick daan jullee daan dajale muqaddam ya ñëpp ci bis bi xam ne moo doon bis rasulullah salaatu wasalaam di gàmmu jumaa jooju rek incha allah li nu bëgg jullit yëpp yéen ñëpp ñi ci Sénégal ak ñi ci Afrique ak ñi ci bitim réew ku nekk dugalaat sa loxo ci jumaa am na nag ñuy wax xaalis bi yëpp yem na waaye mbiru liggéey du lépp du yem nu bëgg jullit yi xarit yi sopp yi ñëpp ñi yaakaar sunu borom tabaraka wa taala sopp sa nga ba tëdd ci Madinatul Munawwara yéen ñëpp ngeen dugalaat ak seen loxo nag ku joxe woon waaye làmbaatal sa poos ku jëre woon pis waa jënd leen ko way ndax li bëgg di ko ñaan yàlla mooy Sidi Aboubacar ibnu Alaaji Mansour xalifa général Tidiane ànd ak rakkam yi ak doomam yi ak jullit yi ñun ñëpp ñu àndandoo inauguré juwaa jooju waaye nag wax rek du ko yeggal pour juwaa ji yegg déedéet da ngeen di dugalaat seen loxo ne ñëpp dugalaat seen loxo ci juwaa ji incha allah ndii mooy ndigal li jóge Sidi Aboubacar ibnu Alaaji Mansour